sëriñ Maodo si di tagg maam Cheikh Alxaaji Omar Fuuti Taal mu ne tayaba teey na teeyal na zikruka sa tur al arja a wàll yi yaa man yow Cheikh maa xam na waxti te teg nga bi kaa bi ka sa tënk al jawza si biddiwu jawza loolu waxin la may yowma xana mana sa yitte kawena laka ñel ne la xiina tuskaru jamono ju nday tudd jiddatun koom wa makanatun ak daraja xat jàlla màgg na majdu ka sag tedd nga an yu saaba jëm ba jot la bala a natt mooy musibar sammilat ka lamboo na la fadailun ay ngeneel min minnanil karimi tukkee ci xewali yàlla wa fawaadilun say ngeneel baharat not na sànnan ci leer wasana ak yëkkatiku sha a soob na al almuhayminu yàlla ma aji jàppandal mbir yi an ya ji mu dikkee bi ko ci yow aayatan kéemaan tux yi nga aji lottal al usura jamono jalaalaten ci màgg wa baha ak taar ya cheikhu ay ay yow cheikh omar ya faqara zamani yow puukare jamono wajuuda yow may tabek jamono ya man yow ma na xàkkaa da ngay yonent yi fi jotoon jaar wal arba xalatta béelal nga fi duniyaa si rawa ya ay kéemaan jàmm yu bari abqad. desal nga laka di la ñeel zikra ak fàttali ku baax na taddu day bonneku sana an tagg wa amarul azimu yow amar fuuti ma aji màgg nara u fii ka danañ gis yow mu saqasan nga nekk ku jëmmal wa bi ab xëriyati yi ak ñaw xel nga xam ne uuti te joxeb na la ko sawa an si yemoo ma daa hukum ku leeni tagg mahma ajada saa wu rafetale mu xasira aj mu aji gàttan la aji gàttal la tagginam waaye afhamtum wedam loo ngeen soara waykat yi wal bulaxa ak ñoom balaaxa yi rafaa yëkkati na azzamaanu jamono liwaakum seen drapeau mutaraf riqan mutaraf rifan mi aji yëngatu moom seen drapo di naas ñeen nit ñi as dayta yoor nga yodal bay daal loxo bi aji weex pour dimbale nit ñi almaj du tedd nga antum yéen almaj di yéene tedd nga wa siyaada ak sangu wa nada ak tab yaa sayyidan yow sang ba nga xam ne yow Cheikh Omar xat xalafa maanaam wuutal nga alkurama way tedd lama ixtajabta lama ixtajabta ba ngay yiiroo anil ayuni walif bari badaa lana badaa feeñ na lanaa di ñeel ahdul baniin mooy kóolu rek say doom saadatan texe waxana ak mbégte فالشعب طب معنا كسنجك معنا آه، فالشعب جمي تخي من موسي جرنا شيد نور والأنوار حلف سعيدنا موي والأنوار لاري حلف سعيدنا أجي تقوى لسنجو سعيد مي من جرنا شيد نور ما هنا قصه جغلنك الباري سنجو برم يدن لخا وعتاك مي لا نمنا سمي خيول والحمد نيغي سنت سنجو بعد التقائي gannaaw dajeeg jamaana suñu mboolo fi cheikhina suñu sëriñ bi nee na ñoo ngi sant suñu sëriñ bi man kaa xam ne naasabal kurama hmm? naasaba def na askono al kurama way tedd yi daan askono si moom